solo da nga ne euh, wax ji yëpp baax na liggéey bi yëpp baax na mais enjeu bi mooy candidature bi kan mooy jiite liste Benno Bokk Yaakaar muy ci suñu gox yi muy ci yeneen gox dëgg la loolu enjeu bu rëy la mais xam nga élection ay étape la tey boo xëccoo jiite liste te liggéey bi nga war a def en amont yëpp defoo ko du am solo moo tax ñun dañu jiital liggéey bi ñu war a def en tant qu'acteur politique ñu def ko loolu def nañ ko ba pare mais liggéey boobu du liggéeyu tey maanaam boo bëggee nekk candidat doo bàyyi ba élection bi jot nga ne candidat la candidat boo ko bëggee nekk da koy jëf ay ati at ca gannaaw di ko doxee di ko waxee ba nit ñi nangul la ko kon tey li nga xam ne ñun taxaw nañ maanaam laaj ndax mini Zahra Iyane Thiam la wax bu yàqu la ña nga nekk candidat ña nga nekk candidat bi ñu tàmbalee politique ñi ngi nekk candidat pour liggéeyal askan bi ñi ngi nekk candidat pour liggéeyal ko ca fam ñu soxlaa ca fam ko soobee ca fañ ñu ko laaje tey buñ ma jiitalee ma nekk candidat fii dama koy nangu buñ fi jiitalee keneen aussi dañ koy nangu ndax li ëpp solo mooy nañu gañe mais gagné boobu conférence des leaders daf ci wax lu am solo dafa ne nañu xool réalité politique nañu xool li nga xam ne wóor na ne bu taxawee ñëpp dañuy àndandoor jàppale ko mu dem parce que aussi politique dafay jot ñu wax ne du question rapport de force politique yéwénante la gis nga bu ñu yéwénantewul du ñu dem te tey l'enjeu c'est pas d'être candidat l'enjeu c'est de préserver suñu réew enjeu bi tey du nekk candidat Benno Bokk Yaakaar enjeu bi mooy nañu fexe ba Sénégal am stabilité nañu fexe ba réew mi am jàmm nañu fexe ba jafe-jafe yi nga xam ne askan wi kenn ku nekk am na loo bëgg nguur gi fajalaat la ko ñu mën ko yeggal loolu nag lu mu laaj dinañ ko def bu fekkee dafa laaj ñu jiite liste bi taxaw xëccu ne ñoo koy jiite dañ koy def bu fekkee dafa laaj ñu bàyyi keneen jiite ko ñu taxaw xëcc pour liste bi gagné dinañ ko def maanaam si gàttal luñ ñu jox ñu jël ndax suñu xel dal na ne liggéey bi ñu waroon def def nañ ko te fii commune Sicap bu fekkee ne dañ ko teg ci euh, li li yoon wax rek li réalité wax rek ci liggéey ak ci ne suñu boroom du fay jëf bàyyi wax kon fii moom ce sera incha allahu rabbi ci loxo président mu ci wax ku ci am preuve yóbbul xam nga lan moo man tey bu ma yore woon preuve maa ngi nii toog di wax li ma ñor mais ku ne la nga ñor boo koy wax day fekk nga jëf ko transfert dafa am nañu jug yóbbu mbir yi ci yoon loolu rek moo fi ne mais li ñu mënul li xel war a xool mooy lu tax élection yi passé bi nga xamee ne mairie yi commission yi fa la ne woon coow amul commission yi tey nekk ci lieu bu neutre coow am xanaa kay bu coow di am opposant yi ñoo war a coow waaye ñi ci mairie bay coow loolu mooy wane ne dañu liggéey te liggéey boobu danañ ko dàbbali ba mu saf sàpp